더 9h30 ci rajo Futur Media mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak programme mu RFM fas yéene ànd ak yéen seen émission xalaas mu di suñu journal fait divers fii ci RFM am mbégte mu yaatu nag di ci ànd ak yéen euh, ma ci ànd ak Mamadou Ndoye Bane inspecteur maa ngi lay nuyu. maa ngi lay ziar sama waa ji di la béggee bu baax a baax a baax di kontaan ci yow. alhamdulilah di ziar passe partout euh, Aba ñu ngi koy ziar moom tam di ko jaal mu ko moomu. Euh, wàññeeku di ñaanal yàlla def jàmm yàlla def jàmm ci réew mi ñëpp nañu am jàmm. amiin waaw yàlla na yàlla def jàmm ci réew mi ñëpp am jàmm. na mm. ustaas si am jàmm sëriñ si am jàmm. Mm-hmm. ustaas yi sëriñ si yàlla na yàlla may jàmm. amiin ndaxte ñooñu ñoo ñoo réew mi nag de. ah ci solo de. waaye ñoom li ne seen ginnaaw bari. Mm-hmm. waaw donc ñooñu il faut ñu leen di ñaanal jàmm. waaw ci kër gi yàlla na yàlla may jàmm. amiin waaw amiin waay. maa ngi lay nuyu. Ndiaye maa ngi lay nuyu di la ziar bu baax a baax. di nuyu inspecteur maa ngi sant bu baax. alhamdulilah di nuyu auditeurs yeeg waa Kaaru suba see Kaaru fajar xam naa tey moom. te moom teel a moom mooy loolu quoi dëkk bi daa tooy. Hmm. waaw siyaar nañ ñëpp. Hmm. bëggee ñëpp bisimilah. annonceur lu ñu wax. Euh, Dinanya ñëw ci ñoom annonceurs yi li ñu wax. Ah. ci kanam tuuti ni nga ko waxee sànq Aba. moo di mm-hmm. baaxoo ànd ak ñun mais ah. voilà nekk ci yow tiis ñi ngi ah. koy masaw bu baax. mbokk moomu fàttu. Mm-hmm. Euh, tey nee nga ma yaram dafa tàng. tey sama yaram tey auditeurs yi ñoo war a bég moo tax man la waxal. waxal ci noo doxalal maa ngi ñëw ci partenaires yi. kon da nga naan ma ndoyloo indaale. Euh. <laughs> ndoyloo indaale. boobu de xam nga ne du ma cee yegg su ma ko doon waxit antenne lay doon. Mm, ndoy la indaale man la lii laa indaale kii nag bàyyam lay wër dañ koy mm. jox jox gaa yi uh-huh. uh, ñu sécurité ko. ñu lanoo ko sécurité. <laughs> André André la. ban waxaatal baat bi. sé sécurité. waay ban déet waay. nuñ koy waxee nuñ koy waxee. sécréto. sécréto boog. demal ci Babacar Fall nga waxal ko jur nga ko juróomi minute. ah na la ko waxal. mënu ko na la ko wax la <laughs> juróomi minute juróomi minute. six heures xaw ma lan teg fekk na juróomi minute. na la Babacar Fall waxal juróomi minute. ah ah mu ah waaw Kër Fall li tàq ci moom daa bari. nee na làmmiñ bi waxal juróomi minute baa nga dem ca Sidaan mu waxaloo la CEDEAO. déet waay. <laughs> uyu ma nga ne bàyyam lay wër. bàyyam lay wër. ayca waaw dé ko. man la maam Katy Dieng ma leen di nuyu di leen ziar yi ñëpp bien vrai dama bëgg ngeen dimbali ma ngir yàlla tax retrouver sama papa waaw. man maa ngi tudd Mame Kati Dieng sama yaay mi ngi tudd Jeneba Goudiaby sama pap mu ngi tudd Assane Dieng waaw léegi ma bëgg ngeen dimbal ma si sama waajur sama papa laa gisul man maa ngi juddu 92 laa juddu ba tey presque am naa 28 ans waaw sama yaay mu ngi Casamance waaw wax na ma ne sama papa fii bu muy liggéey fii. ñoo nekkoon léegi bi ma juddoo si la ma jël yóbbu ma Casamance si la ñu dëggantewul ñoom ñaar waaw si la ñu réeroo ba tey mais franchement bëgg naa ngeen jàppale ma ngir yàlla tax sama pap yang mu ñu tudd maam yi kamara ah, sëram beneen bi Kiki par rapport sama yaay ma expliqué mu ne ma ñoom ñaari rek la xam mais sama maam bu góor moom mu ne jotoo koo xam waaw moom si kap karab la toogoon waaw si nijaayam mu uti liggéey si sama yaay sama maam bu jigéen waaw si moom la nekkoon di liggéey ngeen baal ma nag sama olof yi leerut moo tax waaw wax bi daal awa ñanga tuuti ma bëgg ngeen jàppale ma ngir yàlla tax waaw jàppale ma pour ma retrouver ko Assane Dieng budé mu may dégg franchement parler bëgg na xam kuy sama pap nama ma rek mo mën tan si ci aduna nama wax wa bëgg na kaa xam numéro franchement bëgg na xam trop trop mom lu ma wax sama yaay mu ci si la nekkon di liggéey si sama mam bu ma tuddé non ci mom la nekkon di liggéey wa fi Dakar mais mu ma seen famille lan nek nekk wa ne mais papaay sama mam bu gor mom xamul touram wa ci mère bi rek la xam wa di ma ma bëgg nga jappalé ma ngir yalla tax ma retrouver ko bu gëna ko torop wa non franchement parler sëyñu sëyñu wa daf ma jur par accident waaw ñoom foofu la laan liggéey foofu lañ xamante ne maak euh, sama maam sama turandër boobu waa ak sama pap keur sama train do fum daan liggéey foofu la xamantene ak sama pap foofu la daan liggéey foofu la ñu xamantene man sama yaay lu ma wax wa mune del clair la daan del clair la daan liggéey ci sama keur mam mooy kuñ ma tuddel mam kati Camara waaw maak sama pap fo la ñu nekkoon yëpp foofu la daan liggéey wa bu mu liggéeyee fofu ba jël ëmb delu ba si kap karak si nijaayam dañ toog foofu mais sama papa nangu na ëmb bi bu ma wasinee si la ma tuddale yaayam mu daan liggéeyee waaw bu ma liggéeyee fa mu daan liggéeye moom la ma tuddale mère bi làmb la ma tuddale sama maam moom la ma tuddale mais sama papa nangu na bañu ko mosu koo bañ wala pon lu ma expliqué ma ne mosu koo bañ waaw kooku la ma tuddale léegi bu mu demee si kap karak toog foofu jóge fa dem benn barak jóge benn barak si la benn Casamance si la réeru ak sama papa ba léegi ci santewuñ waaw moo tax ma koy wër bëgg naa trop xam ko bëgg na xam papaam de mu ne yaayam nu mu tudd yaay waa ji kati kamara non moom yaayu waa ji moo tudd maam kati Camara. Ah, xale bi. maamam daal waaw moo ko tuddee. d'accord moom lañ ko tuddee moom mii di wax. waaw moo nañu ko tuddee waaw moom mi ngi tudd maam kati léegi moom papa ji bañu ko. bañu ko woon de ko juddoo bañu ko oh, déedéet ah, kon koo réer. waaw da koo ah. xam nga dañoo déggoo yaay ji dafa doon liggéey ca kër ga. Uh-huh. accident am fa moom mu judd ci. ñu tuddee ko maire bi ne borom kër gi. Uh-huh. léegi nag moom mu demoon Karak après mu dem benn barak. après mu dem Casamance. Hmm. gisanteetuñu nag xale bi màgg nag di wër baayam mu ne mu ne mu ne fa fa fa fa bàyyam doon liggéey da di Derklé non Derklé la la la yaay ji dëkkoon maam Kati ah, Camara moo dëkkoon Derklé ak papa ji Derklé nag réyul sama kañ boobu waaw xale bi femme bi doon fa liggéeyee mhm. ci la fa lii xewee d' accord d' accord xale bi waa ji mi ngi tudd Assane Assane Dieng su que nay bàyyi di ah. wax daf maa jur par accident yàlla du accidenté mm. fu doon warta jur ko fa def ah, yaa yaa wax la lii <laughs> tey ah xam nga boo nee par accident te nit bu wàccee ci kaw suuf yàlla ko wàccee te yàlla du def accident waaw bërki démb loo leen wax fi ba ngeen bañ bañuy waajee coow ki mën muy euh, yenn ëmb yi ñu autorisé ñu koy dindi waa waaw mais ah ban xam nga diine yéen ñeneen ba bàyyi wax la rek bàyyi wax rek xam l'islam oustaz a ngi nii toog bu ñu fi hmm. naree werante moo ko mu ñëw hmm. l'islam àndul ak dalay loraange waaw moom oustaz Mor Thiam nee na loo yëkkati mu diis tegal ci suuf di lislaam waaw bu fekkente ne nit dañu koo tëj ci néeg duma ko yegg ci kawam ëmb sosu ca. waaw suñu borom la soob de. waaw na waaye xale booba. waaw moom su ko bàyyee mu judd. waaw heure bu ko xoolee day fàttali ko naqar wa. mais du moom moo ko bis mooy munul wax xale bi kii mooy sa baay. mais moom indiwu ko fi de. waaw d'accord li ko fi indi moom mi bëgg ko moom mi ko bëgg a avorter. moom mi ko fi indi. ah moo fi indi gone gi. boo ko wéeree foofu rek. ah foofu laa koy wéer euh, ndax yàlla foofu la ko. mais mais mais mais mais njaay njaay njaay li muy wax nii rek am na xam ne baan ca na muy sosoo maanaam nature ëmb boobu. yàlla d' li neex yàlla nag nit waru dindi. yàlla bindi nga ne da nga koy effacé. loolu mooy avortement médicalisé. waaw yow yàlla moo sos moo sos oto moo ko moo tax mu am. waaw dafa neex yàlla. waaw waaw yow yàlla neex dem ci jël pompe si ba def na la yow nga def ci essence pour mën a daw déedéet nit nit la sàkk. waaw sàkk oto sol comme xel. moo sàkk oto de. déedéet sàkkul oto nit a sàkk oto. waaw ba tey mais benn bi la rek. déedéet nit ni rek déedéet. mais dama ne ban. yàlla sàkkul oto de Ndiaye Ndiaye li muy wax nii. waaw Ndiaye li muy wax nii maanaam bon sens lay waxee ak xel mu sell waaw ah kon man sama xel seelul daal non maanaam bon sens maanaam ci lu rafet laay wax. ah yaa ngi passé avant comprendre dama ne. Ah, maanaam moom ci lu rafet lay wax mais tey ci diine ci ci diine diine du nangu loolu yàq nañ booy formanté formanté nañ booy ah, booy non dama ne ban ban déggoo ma dama ne Ndiaye hmm. ci maanaam ci bon sens lay waxee mais ci euh, diine diine du nangu loolu euh, passe waaw euh, non sant partout bi Ndiaye kii nii agent croix rouge la waaw saag daal benn saagam la moo réer bu def passeport def ay kartam euh, comité international Croix-Rouge international euh, xaalis bu en dollar ordinateur portable am ak iPhone am ak dossier classeur am yëpp maanaam léegi li muy liggéey xaalis ba ak léegi dafa réer te dafa ñëwoon mission rek Pape Demba Diaw mi ko gis nañ ko dimbali ndaxte ñii moom suñu ñàkkee seen yooyu moom rek day day day xaw dis ci ñoom. fu muy liggéey. Euh, defe naa croix rouge la nekk. na ci def croix. waaw da mu ngi def croix bàyyi dimbali ko rek ñaanal ko mu feeñ. ay ay dollars fu muy feeñee. ci non dafa waroon a voyager le 22 août. Euh. passeport ba dem. Euh, xaalis ba dem passeport ak yooyu daal tur bi. nu mu mm. tudd nga ne. Pape Demba Diaw. waaw Pape Demba Diaw. waaw na ko na ko moom am na sama benn xarit boo xam ne pharmacienne la. Ah. Thiès moom ab xajamoo réer. temps yëpp mi ngi ma ko yëgal yëgal waxuma ko daf ma mere mais daal xaj bu ndaw la xaj bu ndaw la boo xam ne. Euh, Yacine Pouy. <laughs> waaw service digital yenn ni bu ko bande annonce damay bëgg ngay. Ah, couper couper direct bi. de dëgg ab ah, xaj xaj moom kat moom mere na ma ndax xaj bi xaj bi xaj baa ngi nii xaj bi ñu ngi nii xaj bii la. Hmm. xaj bii moo réer. xanaa tegul tegul rançon. waaw Thiès la defe naa Thiès la réer ah. Hmm? waaw xaj xaj bi xajee na de. gis naa ko xaj mbéyoo mu teg naa son bi xaj bi taxaw. waaw ah, gis naa mu taxaw jox ma ko ma dugal ko ci page xalaas. na ah, euh, 500000 la teg rançon. waaw si suba sa xaj teg rançon. Ah, en tout cas ko de. waaw la ko euh, waaw ndax kon jox ma ko jox ma ko ma dugal ko ci page xalaas maa nga koy yónnee léegi Facebook bi waaw. d' accord ma ne mi ngi dégg wala mbokkam. waaw nañ ak ñun ci 77 150 17 17 ak wa xalaas yep ñu ñu dajé fa ñu jéem dimbali xalé bi parce ki da daa taxi dé ah d'accord gis bàyyam wër papam kii dafa jël taxi ties waaw ties waaw ku fa ku fa ku fa jël taxi kanguru ah. bu bes wala nga am koko jox ah. bu bes bu nga xam ne waa ji jox ñol la rasaman ah. am cicatrice waaw nanga jugo ta xam agresseur la déglul dama jógee sama kër jëm banque bu ñuy wax bi nekk côté hôpital régional rond point hôpital régional banque bu orange la dama génn dugg ci banque bi génn am benn dossier bu moo fa jël génn rek benn taxi traversé voie bi ñëw taxaw sama tànk ne soxna si foo jëm am na benn waay bu wàcc taxi bi nag ne ma soxna si foo jëm ma ne ko HMO de Dakar mu ne ma yéegal ma yéeg après mu jëm côté course ba maa ngi naan ko mënoon nga jàddee nii rek moo gën a gaaw mu ne ma ndox yi laay moytu sama oto bi dafa bees moo tax léegi boo duggee nag oto bi danaan karaj tëju léegi bi ñu avancé ba mel ni ku jëm côté course ba ma ne ko sëñ bi fi ngay dem sori na mu ne ma ndox mi laay teggi ñu dugg benn koñ boo xamante ne nii yoon bu tàlli la nii ginnaaw hôpital régional bi noonu mais yoon bu taal la te gudd dañ dafa am benn maison abandonnée bu nekk foofu ci côté bi ñu daal dañoo yegg ba foofu rek mu gaare côté boobu juste côté bi ma toogee woon buntu bi la gaare foofu ci buntu buntu kër maison abandonnée bi daal di ne ma xaaral ma ko sama capot ma ne ko waaw. mu dugg xool mu ñu gee wàcc xool kapo bi tëjaat ko ñëw côté bi ma toog buntu bi ne ma soxna si wàccal ma ne ko fii lu ma fii def heure bii lu tax may wàcc fii fii nga xam ne ak tali bi mu sore ma ta wàccal ma wàcc bi ma wàccee mu loo yor ma ko yor ma dara mu ma indi xaalis ngay génne ma ne ko yoruma xaalis sañ mu ne ma ma xool sa pochette ma génne pochette mu xool may gisul dara mais par la suite instant bi may laaj sama saag lu ci nekk ci la benn gain boo xamante ni dafa doon naan kafe dafa sëpp woon ci balcon di naan kafe si ñu séen nag mu lem sama loxo bi après waa ji wàcc balkon am daw si di ko jub si rek mu daw mais bi mu dawee dama tiit ba jàpp ma matricule oto bi mais waa ji ñuul na njool na ñaaw na def ay njañ yu ngand yoo xamante ne nag ba pare dafa am benn marque ci wetu bët bi ñu ngi ko ñaw ñaw bu rëy ci wetu bët bi ba pare mi ngi def benn tatouage ci loxo bi. Euh, oto bi taxi kangourou yi la mooy ñuy ubbi tiroir bi en plus euh, onze heures jàpp midi la woon heure boobu la woon xalaas sama dëkk ba la xewee Thiès waaw yóbbuluñ ko dara luñ ko dara mhm. mais sant yàlla mais xam nga li mu joxe également du takk waaj dafa am cicatrice ci kanam dafa rasame bu ko neexee mën naa watu dugg ci dëkk bi defaat la muy def waaye ka ko oto ba fekkee dañ ko ko jox waaw fekkee dañ ko ko jox wala ñu xàmmee oto bi waaw oto kangourou pour euh, suñu classe nga xam ne miinuñu oto mooy mel comme oto mburu yi de mhm. ginnaaw gi jël ay place dan tiroir lay tijjee ko nii porte ko waaw nañ ko xam bu bees ah bu bees njaay na sant yàlla oui ban fan yi passé am na benn femme bu ma fi indi woon bu doon jaay boppam ba dajeeg benn waay mu jox ko chèque bu baaxul bu baaxul mhm. topp na ca ba sonn mhm. jotu ci dama nañ ko wax ma laajoon ko nag benn question ni ko la dugal ci lii. Mhm. pour mu bàyyi ci mu yemale ma. Mhm, <laughs> ba si internet yi reprendre ko. Mhm. di di di di ko kii. maa ngi koy fàttali ndaw soosu nag temps yi yëpp mi ngi ma doon waraat ba dañ jokkoowaat démb. yëf ya la bëgg a ba. moom ci boppam jaay bi mu doon jaay boppam. ma ko doon laaj lu tax nga koy def. ci la ma expliqué li lu tax mu koy def ak lan moo tax film nii mu jël décision génn ci ndaxte nee na day bëgg a dee te li muy def baaxul. Mhm. toog na yedd nañ ko yedd na boppam bëgg cee arrière baayam da ko daan ànd ak yaayam divorcé bàyyi ko moom mooy taaw amaat na yeneen juróomi rak yoo xam ne. Mhm. ay jigéen lañu maanaam yaayam dafa def ay jigéen rek jigéen ñi yooyu nag ay xale lañu moom moo ci xaw a dëgër ñëw ndakaaru di. jaayante di jàppale yaay ji yaay hmm. ji fi mu dafa feebar léegi loolu nee na juróomi ngi mi ngi jaay boppam hmm. di yónnee yaay ji muy faju di leen yónnee ñuy dund hmm. waaye neen bi émission bi passé ba léegi ba benn xaritam yedd ko mu yar xaritam boobu moo ko fi yabalaat déglu ko njaay dama toog xalaataat ak sama xel bu baax a baax a baax xalaat pour nekk ak sama conscience tranquille seet naa wéet naa fenn xam ne lii may def nii jëmul kër jëmul kanam te man jigéen laa te ëllëg ñaan naa yàlla am jëkkër am samay doom fondé sama foyer gérer sama foyer. waaw yow yaa yow yaayu femme bi nga xam ne yow yaa amoon problème ak. man maa amoon problème ak waa ji ku ma joxoon faux chèque bi. dama dëkkul mu dëkk HLM Grand Yoff man la. voilà léegi yow kooku noo mujjee ak moom. ba ba léegi joxul ma sama xaalis dama ko bàyyi ak yàlla. waa léegi nag ma bëggoon tonton Ndoye. ngay ngeen jàppale ma te yàlla rek tax jigéen laa gaa. Dakar kenn mënul liggéey mbindaan. quarante mille franc wala weer trente mille franc yor si sa bopp Dakar nekkoog sa yaay nekkoog sa papa. yoppi say waajur sama yaay man maay taawam bu jigéen sama yaay amul kenn ku dul man ñëpp ñu topp si man samay ay ay ndaw lañ te dañuy jàng séer lañ ay jigéen lañ ñoom ñëpp dañuy jàng sama yaay dafa feebar yëpp en plus dafa divorcé ak sama papa lu gën a tax may def lii xam ne salaire bi naan quarante mille wala trente mille franc tey bu ñu fayee doo am loo jëndalee sa yaay mais yow da nga ne moon liggéey salon nga doon liggéey salon laa ñëw Dakar mais après dama arrêté woon liggéey parce que lañ ma doon fay foofu dafa tuuti woon bi ma demee dama dem dem si façon situation wala dim xanaa amoo fi ay mbokk te mbokk tey léegi ci li yàlla xam rek li yàlla xam rek doy la da ngay ñoom ñu lay exploité li la manipulé lu ne ñu la koy defloo seen biir kër ba ma demee nag ba xaw ma nan laay def ñaar bi ñett may fanaan ci ay station bi gën bi ñaar bi ñett ma fanaan may fanaan ci ay mbedd bi fanaan ci kër yoo xam ne dañ koy defar te pareegul may muñ rien sama yaay moom moo ma ko jaral sama wàccu bi jigéen moo ma jaral loolu yëpp mais yow oh, oh, bi ñuy keroog bi ma lay interviewé dama laa laaj loolu dugal ci lii nga yamale ma li ma li li tax waxuma la lan moo ma dugal ci lii non non danga maa danga maa danga maa yamale woon nag danga maa yam dama la yamale woon maa ngi jégalu Mm-hmm. mais boo gisoon boobu moo la woon dara parce que sama vie la. pour man kese bëgguma ko wax kenn. nekk du xarit bu may àndal wala ku ma bokk ndaa baay ma ne ko lii laay dund jamais. mais boo gisee tey jii ma ñëw bu retourné waat pour ñëw wax la li man li ma nekkee ko bëgg a bàyyi. dama toog xalaat xalaataat yëpp sama bopp si àdduna xam ne jigéen laa. dama toog sama benn copine. mu ne ma lii nii da nga ko bëgg a bàyyi ma ne ko waaw lii dama ko bëgg a bàyyi parce que bu ma ko bëree liggéey ba tey mot na cinq ans dama ko ma cee bëgg a génn définitivement xale bu jigéen ne ma ah boo munoon def lu tuub nga a déggante waata mu doon baan nga expliqué problème ne ko carrément li ma ci li ma nekkoon dama génn mu ne ma la jàppale parce que am na ñu bëri ñoo xam ne dañoo jàppale ma parce que fi mu nii sama yaay sonn na gisul ku ko jàppale amul ku ko jàppale kenn ku dul man bu weer dewee suñu ko maay teg sàcc ceeb maay teg lu fa nekk tey jii ko jot man maa ko def. da nga ko. pour ma lépp lu ma def yëpp laa ko jëlee. lépp lu ma def ci tabaski bi samay rakk maa leen jëndal yére daal maa ndugal sama yaay jënd lépp xar kese laa jëndal sama yaay parce que boobu aw ma lu ma jëndee xar tabaski. sama am dañ ko mayoon xar. ñaata at a ngi nga nekk ci. ça cinq ans ma nekk ci liggéey bi Euh, juróomi at ma nekk ci liggéey bi. ñaata nga daan am par jour. par jour damay am ay cinquante mille soixante mille francs. xalaas. Ndiaye dégg nga loolu. moom laa gisaat ni muy waaj a waxaat. waaw déglu ko. mais dama xam ne jigéen laa ëllëg damaa war a sëy am ay doom moo tax ma ne lii may def ni jëmu kër bàyyi ma bàyyi ko même bu fekkee damay mëg di mëg ci sax heure bu ma amoon sama rendez-vous heure bu amoon sama rendez-vous dem hôpital ni ma fay gis samay moroomu yaay lañ mag sama yaay ñoo xamante ne biñ nekk damay dégg ko xamante ne damay def damay dégg naan def naa ci dix-sept ans wala huit ans ci loolu man ñaanu ma ko yàlla tey ay mag ay mag lañ daal ñëw ma ko yooyu bii a jóge définitivement changé sama vie changé beneen vie mais est-ce que bi instant bi jógee nga ci depuis après tabaski ba tey bàyyi naa ko. Mhm. depuis bi tabaski passé ba tey maa ngi toog lépp lu ma lépp lu ma am forta ak lépp lu ma am tey jii des fois damay nit damay naa damaa bëgg a léttu fay ma trois mille wala deux mille cinq cent ma léttu ko ma jël xaalis boobu dugal sama poche indi fi lekk ndékki añ ak léegi da ngaa jaay bëgg bàyyi jaay sa bopp carrément léegi léegi lan nga bëgg a def léegi yow soo ko bàyyee lan nga bëgg a def man coiffeuse laa coiffure jàng naa ko pendant deux ans six mois def sama examen accéléré def sama stage bi ma defee sama examen ci lañ ma joxee sama diplôme ndaxte dañu amoon moo taxoon sama diplôme bi la kaale léegi nag man dama bëggoon ministre de la femme wala Matar Ba wala première dame képp ku ma si mën a jàppale ngir yàlla war a suul ci barke Seydina Mouhamed ne turu Matarba parce que Fatick laa dëkk moo tax ma tudd turu Matarba mais fu ma ma ko wax ku nekk sutura ngay wut damay man boobu ma xaawi sama sutura yi nga xam ne ñi man képp koo xamante ne da nga yor carte de santé nekk ci man maa ngi lay digal nga bàyyi ko lii nii nekkul loo xamante ne liggéey bu baax la sa dara dina yàqu sa yaram dina futi di nga yàq sa àddina te ñun ñëpp ay jigéen ñi ku ci nekk yaa ngi ñaan yàlla tey am sa docteur. noo def ba am ko carte de santé. man li ma def ba am carte de santé dafa am ku ma booleeg médecin bi ma koy defal te ki ma ko ki ma boolee kooku noonu dafa yor carte de santé moom moo ma boole ak moom. man pa liggéey bi man pare naa si depuis après tabaski ba tey laa si bi ma doon wuyoo dama jël téléphone bi fay ko jël puce bi nekkoon ci biir téléphone bi dem ma ko sànni. ah léegi beneen numéro bu bees nga yor. beneen numéro bu d' accord léegi yow fi nga dëkk yow yaa koy fay wala da nga am ñoo ko dëkkal. Euh, jigéen laa man kese maa nekk mais fi dëkk man maa ko fay chaque fin du mois cinquante mille franc laay fay te xam naa ne weer bi ñuy jubbu nii fay bi du baax fay bi dina métti si trop parce que yoraguma lu ma ko fayee. d' accord léegi yow sa yaay yow da ngay jaay sa bopp ak koo xam sama yaay sama benn parent mosul xam ne damay jaay sa bopp damay liggéey envoyé leen xaalis te sama yaay dafa feebar wéru heure bu ordonnance am génnee man maay jënd ordonnance te bu demee rendez vous lu bind ordonnance daf may naan am naa ordonnance ñaata la mu ne ma lii ma dem envoyé xaalis bi voilà. te xamul foo jëlee xaalis bi. déedéet xamu ko parce que dama ko ne damay liggéey mais si ci wàllum salon de coiffure laa yëngu loolu moo tax man bugguma ko wax li li ma nekkee Dakar bugguma gis naa ko wax sama yaay ma. par jour dinaa am mun naa am cinquante mille ba soixante mille francs chaque jour. nit nit mun na ñëw fekk ma. waxtaan ak man lan moo la duggoon si lii ma expliqué ko su ma ko su ma la expliqué damaa bëgg ñu génn si lii am quinze mille nga ni man maa ko jox yoo xam ne ñi ngi fii di footaan ñii di passé ñii ma ko mais xëy na lii nii nii nii nii nii mënu ma woon toog xaar weer bu dee parce que sama feebaru yaay moo taxoon ma dugg mënu ma woon xaar weer bu dee parce que sama yaay mënoon na feebar ci diggante bi ordonnance ñëw du ma am nu ma ko jëndee may xaar weer bu dee fan laay lebee xaalis ak ci kan laa koy jëlee loolu moo ma si dugal man bu ma kenn jugé nag du bon moo tax ma def ko du bon moo tax ma def ko wala bañ liggéey wala ñàkk bëgg liggéey moo tax ma def ko bu ma kenn jugé juge moom moo ma si dugal ak ñàkk am ku ma jàppale ak suma yaay ñàkk am ku ko jàppale loolu moo ma si dugal mais du bon maa ngi lancé appel yu góor yi nañ bàyyi bu ñu nekkee suñu wajur yu jigéen ñi nekk ak ñoom nekk ak ñoom ba am ak ñoom seen njaboot bi bëri ñu bàyyi leen wan leen ginnaaw su ko defee mère ñun suñu wajur bu jigéen bu dee ba màgg ba toll yenn yi dinañ dem ba du am ku du ñu am ku leen jàppale loolu mooy dugal tey jii sa doom tey jii nekk Dakar bu dee góor bu dee tey jii jigéen bu jigéen bi jaay boppam mun na nekk góor góor bi mën a nekk mën na nekk baane wala muy agressé maa ngi tuub nag maa ngi tuub maa ngi tuub maa ngi tuubaat ñëpp nañ ma jégal ñëpp nañ ma jégal ci barke Seydina Muhammad na ma ñëpp jégal xalaas Njaay sama xarit baa ngi noonu mm-hmm. waaw mi ngi noonu de wax dëgg yàlla. Ah, man de li muy wax li mu wax rek laa koy jottali. waaw mhm. nekk na ci mbir dem na ba xam ne baaxul bëgg na caa génn. Mhm. nañ ko jàppale mu génn ci. ndax journée mhm. journée journée soixante mille wala cinquante mille neex naa ba. déedéet déedéet. ngor moo la ciy génnee xam nga journée cinquante mille weer wi ñaata la. un million cinq cent. d'accord et puis du chaque jour lay am loolu nag de. waaye déet risque sax looloo ci gën a tuuti baax du chaque jour quoi. mais ñoom ñëpp balaa ñoo ci dugg xam nañ ne baaxul. waaw ñoom ñëpp. de loin. waaw balaa ñu ci dugg xam nañu métier mi baaxul. Mhm. waa Ndiaye yow ñii di jaay jigéen ñi di jaay journaux yi ci kaw tali bi ñii di jaay ay garabu matt ak garabu yo ñii di fóot kii bu xëyoon mois wala dix jours wër ndakaaru wut liggéey da koy am. Mhm. saay mhm. bëgg lu yomb dong lañ jàpp. loolu ci la bokk. képp yaakaar yaakaaruma ko. yaakaaruma ne mais am na ñoo xam ne moo leen ciy dugal. d'accord naa mais am na ñoo xamante ni comme femme bi ni ma déggee mu wax. gis nga euh, ñàkk ci lu mu ci lu mu ci lu mu ci lu mu jàpp bokk na ci li ko ci dugal. man di d'accord naa ci benn affaire bu wax. Mhm. gis nga Ndiaye dama koy faral di wax. ñu naan dof bi wax na. góor ñi nañ bàyyi di sey jigéen am ak moom juróomi doom juróom benn doom fase ko abandonné ko. Mhm. soo ko defee jigéen boo xam ne ji boo xam ne jàppul ci dara. Mm-hmm. ay doomam màgg suñ dee ay góor mën nañoo dugg ci naka su du noonu pour dimbali seen yaay mm-hmm. su dee ay jigéen mu taaw ba comme kii mën na génn di def naka su du noonu di dimbali seen yaay mm-hmm. xam kii dafa wax rek ñaata jigéen ñoo nekk ci ay appartement toog fa liggéey ñu dara xëy ñu gontuñu dañuy diw seen yaram ba mu rafet goor ñi di leen fekk di leen fayal appartement loolu prostitution la. waaw après ci lañ yor seen yaay yor ci seen papa yor ci seen kun ñu yaaka yor ci ay auto yu naaj nit ñi seen morom yi di gis leen di leen ñee ñu yaakaar dañuy liggéey yu kenn xamul di kocc kocc sur li c'est sept huit fekk li ñuy def c'est de la prostitution déguisée. Hmm. yor ci seen yaay seen yaay nekk ca koñ ba ñu naan mooy dog bu mu gàcce yi mais comment ngay dogee bu mu gàcce gi sa doom ja ca Ndakaaru lu muy liggéey am alma di la nekk yor fa appartement fu muy xëy. Hmm. am na ci ñoo xam sax dañuy xëy am nañ liggéey am nañ salaire un million euh, dëggal cent mille wala cent cinquante mille mais am na leneen lu ñuy def. Mhm. parce que képp koo xam ne da góor daf la seet si séq yow lenn yi toujours jëkkër jox la dara loolu prostitution la. muy benn benn da ngaa fayee muy benn facteur bu koy waral. voilà mhm. waaw mais d'accorduma sax ci ne. cent pour cent. Mhm. sa jigéen am moom ay doom bàyyi ko. moo koy waral ndax nit am na feeg ay doom jigéen plus de dix doom. xëy faatu bàyyi ko fi. waaw taxu leen a ñàkk jom mais gis nga mbir yi li leen ciy dugal dafa bari benn mooy pression sociale bi dégg nga femme bi nee na day dimbale ay rakkam di dimbale yaayam hmm. bu demee di mbindaanu ba muy fóotaan di fay li ñu koy fay par weer wala li muy am par bés hmm. munu sax dund ba ci yor keneen hmm. cette dame ci li mu wax elle a beaucoup galéré fanaan na ci station fanaan na ci bâtiment yeggul donc dafa gis li mu jàppe ko bunt bu mën a jaar pour génn ci daaw na looloo ko ci dugal kon kooku nañ ko jugé noonu. mais mais nag Ndiaye man gis nga beneen bi topp yow ñi ngay wax ay almadeeg ay ñoom seetaan tey koo ci fëgg fukk yoo ci jàpp. Hmm. ci jigéen ñi yor appartement. Hmm. fukk yoo ci téye. Hmm. juróom-ñeenti li ñu wax mooy damaa divorcé. dañuy sàggane seen sëy wala ñu tàbbi ci góor gu leen munta yor muy nattu. mais ci gàttal lu mën di doon sàggane seen sëy génn ca. ñaar la doon. gelu jëkkëru jàmbur. ba ab ñaareel. Bàccaga oh, mm. bu mu ci mënti don baxul. Yag na wax cela dit. yag na wax Ndiaye ni uh-huh, uh-huh. Jigen ni ku ci yor seuf sey. nga am jeuker ju bon ba melni ndoy ban. Uh-huh. Nang ci japp. Ndax te bis bo génnee ci sey ba gelu gaay ngay don. ci lu leer lu gaay yi ñu le. surtout ku ci ami dom. Gaay so tassé seuf sey sëy juromi dom, takku ñu la de. <laughs> en tout cas en tout cas. terrain entraînement lay def. ñi nga xamante ne dañu dañoo jógee. booy dañuy entraîné mag ñi def entraîner, vétéran yi def entraîner. paa yi retraité yi dafa entraîné. ngay tëgg ay ban téye leen seen ban kii Ndiaye Ndiaye yi 50 mille fay par weer. moom mu ngay fay par jour. waaw ñooñu ñëpp pression sociale moo ñu fi indi. waaw donc ay pression sociale la gëmuma ma xamal ah, laa gëm uh-huh. na dem daani dooleem. te mm. bàyyi lii baaxul moom kay li mu bëgg mooy. 77 50 mi ngi ci kii mënut ko bàyyi. 77. Uh-huh. Uh-huh. ah 150 17 17. ko rek ñu daje rond point. da nga rek. passeport waaw nañ ko koo xam ne daal mën nga koo dimbali. Mm-hmm. bëgg ngaa jàppale menn mag nee na ma waaw woddu jigéen mooy woddum réew waaw suturaal jigéen mooy suturaal am réew waaw jàppale jigéen mooy jàppale am réew benn mag nee na ma mm. benn mag mum jigéen nee na ma wala benn xale bu jigéen jeune fii bu ndaw woon fii nga toog mm. mun ma ñi ñi ñaan woddu lool wodd ñi ñi nga xam ne ñoo ñaan ñu woddu leen ñooy tasaat sunu sëy sunu sëy collection parfum de classe Béas KSS Trading, Ker Serin Salou, Borom Bazin Beka Goldi, ak etablisman wak Ker Serin Touba Fal Efrer, milen indil gam vit fe, mil men si yo, wen ak mbot, nyo len donmen sen emisyon khalas.